sëtu Sall Sadio Bachir. déggul dara. maa ngi ma xaw a. déggul dara. d'accord. d'accord. boo wàccee ne ñëw donc waaw bismillah. s'il vous plaît. votre attention donc. Euh, tegal ko mu nous avons historique le fils l'honorable député Ousmane Sonko est venu rendre visite à son oncle à son père docteur Ahmed Khalifa Niass Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais donner à notre hôte. Je donne la parole à notre hôte. On va pour lui, hmm? lui souhaiter la bienvenue. Voilà, je sais pas s'il faut commencer par le français qu'on nous a ainsi imposé, jusqu'à le fait le fait de ne pas parler français soit considéré comme une tare, comme, même comme un attardement waaye ak lu mën a xew ma ne rek kay dëgg yàlla dafa def bésam yi bés bu ne mu am lu mu ca def nit ñi nag ñoo am altine ak talaata ak àllarba waaye yàlla lu muy def ci talaata dana ko def ci àllarba dana ko def ci altine dana ko def ci beneen bés tey nag ci bés yi nga xam ne dafa bégloo kër gi ca la bokk te journaliste yi xam nañ ko ndax su fekkee ne képp ku oote yàlla moo la ooteloo danga koo yëgut wala ràññiwoo ko waaye noo koy xame bu nuy ji bu nuy ji bu ku ne mën ngaa woote waaye bu nu ñi wuy jee du yow yàlla mais am na ñoo xam ne pare nañoo jël essence sotti ko seen bopp taal ko pour ñu ni diw sàngam te ñetti nit rek sax duñ ko yëg waaye nag bu dee yàlla moo ne uy ji leen diw nga xam ne kooka bu doon jamono yonent yi yàlla dina ko yónni ci nit ñi bu dul jamono yonent yàlla suñu boroom def ko ba bu sëqatee sax ñi ñu ni eskay lu jafe la waaye bu ko yàlla defee lay yomb jamono ji ñu nekk indifférence moo gën a bari tey nag bàyyi sa ngi ni ñoom ñaar ñoo maase am nañ fi ay mag yu góor yu jigéen ndax man tey maa ngi sama quinze ans kon ki nga xam ne yàlla mu ko def ci 46 ans kooku doom rek la mën nekk ci kër gi. waxtaan nañu itam ci biir ndax doo am gan mu ñëw nga ñëw wax jaaxal ko walla mu wax jaaxal la man muy yàgg di liggéey ak chef d'état yi chef d'état yi. gis bu ñu def sommet bu ñu nee déwén nañu war a def bi conclusion yi moom dañuy njëkk a bind tey li ñuy war a wax fekk un an ba ci araf ba ci virgule dañ koy di chef d'état yi ñuy corriger lii na dañ lii na dugg parce que mbetteel baaxu tey buñ toogoon rek ne la mbooloo mi ci biti yëpp Sonko moo la set ah amoon ndékki loo ko jox amoon ndox mu sedd amoo dara da ngay jaaxle waaye bu ñu leen bu suwaa mu ñëw ah boo amul café ak meew it am café mbaa nga am meew donc premier point boo xam ne moom dana ko confirmer mooy danañu oo ndaje pour samp li nga xam ne mooy idéologie di patriotisme nous n'avons que le Sénégal ou qui est notre berceau et qui un jour sera notre tombeau. Nous ne pouvons pas cultiver ailleurs. Nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas nous épanouir ailleurs. Donc tout ce qui est bon pour la patrie est bon pour les patriotes. Nous ne serons jamais communistes. en tout cas dans nos comportements nous ne serons jamais serons jamais libéraux dans nos comportements parce que le libéral le libéral se sent le frère di libéral la où il est nous ne serons jamais socialistes c'est l'un des leurs qu'on nous a posé ici dañoo nax rek ne ñu mi ngi noonu mais duñ ko yëg sama yaay nit ku weex la shérif la surtout yonent bi waaye daf ma ne ñuul amul weex amul mun ko ah ñaa ngi nii ñuul weex mu ne ma kuy nelaw bay gént ni dangaa weexoor dangaa ñuul mais loo xam ne boo nelawee fàtte ko rek bokkul ci yow mu ne waaye loolu nee na nelaw bu seddee yaa ngi xëcc kii bi parce que yëg nga ne sedd na da nga ne tàng na waaye doo yëg ne weex nga doo yëg ne ñuul nga loolu amul yëg-yëg moo am réew mi li ñu yég bu tawee danañ ko yëg bu maralee danañ ko yëg te loolu fii rek lañ ko yége fii rek mooy maral ñu xiif taw taw bu bëri ñu suur kon loolu jarta xeet baat boobu patriotisme boobu dama cee xalaat ay at maa ngi ni toog ak yéen Ablaye Wade toog na fii seede lii ma yor yépp man maa ko jox xalaatu na créer parti boppam bàyyi fi PS fa ne woon walaa ko fekk maa ànd ak moom ñu dem ba Mogadiscio Senghor jox ñu récépissé téléphoné Jean Collin pour ñu jël suñu récépissé kooku mooy parti bi nga xam ne njëkk naa nekk ki ko xalaat sos ko fii ñu toll ñoom it ñun maag Sidi Lamine sama rak toll nañ fa dóor nañu dàqe tëj nañ ñu xeel nañu façon bu ne gis nañ ko amul benn façon bu boo xam ne danañ ko def opposant te ñun jaaruñu ci amul ba fii ñu toll gars yi li ñu ñeme ñeme ba tey kenn ñemewu la jël pra euh, drapeau France cos cos almet teg te def nañ ko ci kanam bi yi lañ ko defee te fa mu safee Mitterrand président Mitterrand mi ngi nii ñaar téeméeri journaliste wër ko ñu taal drapeau bi mu jooy yuux il fallait nag ñoom ñu am ko ñu relayer nag patriotisme déedéet ci la bokk l'islam sax ci déedéet la commencé laa d'accord looy wax nga door koo wax léegi nag ci démocratie ci démocratie loyauté ci la opposition di teg tànkam pour mën a opposer mënul jamais taxaw ci négation du ma guddal ndax beneen xot baa ngi leen di xaar muy xutba juma mais léegi ci lañuy wax ci biir mu ne ma Macky Sall moom dañ ko fi bàyyi ba ñetti at yi jeex te loolu ku koy wax booy wut dof teggi ko koy wax loolu teggi ko ndax Moussa ca kër Firaaw na la yaroo te tu terew ko nekk am Moussa ne Moussa yaroo ci kër na tere koo nekk Moussa kon premier premier point mooy ma président Macky Sall est une institution nous reconnaissons les institutions et nous respecton mais nu ne serons jamais sur notre ennemi à tous la corruption man day juróom-ñeenti at ci laa tàmbalee di wut sama bàyyi ci boppa ba ma juróom-ñeenti at laa commencé di gérer budget bi ñëw naa fii ànd ak moom ñu teeru général de Gaulle le 26 septembre 1958 maa organisé voyage ba man mi am 12 ans boobu 12 ans la am si bi ma amee 12 ans teg ñaari weer ci la fi jógee may jox sama yaay ak samay rakk te toujours maa ngi koy wax depuis 40 ans yore yoreel nit juróomi dërëm du nit du banque du société du kenn ba ci biti naar bi man lu mu am doy na bu mu amul woor suma waa kër yi woor dañuy woor ñun fukki fan di ko teeroo weeru koor donc li nga xam ne moom mu am importance man wax naa ni musuma musuma jël am benn mètre carré boo xam ne état moom ma ko musul am fii ma ne ci ñàkk ña yow xam nga ndax gouvernement mën naa jël nangu suufu bu jox ko nitam de kooku ko am lébu yi la neex man maa ngi am foofu 1975 boobu la am un an ci laa fa def jënd ci lébu yi defar teg yooyu yëpp pour wane ne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 dañoo bëgg ngay wax ak usmaan Sonko ci liy doxal réew mi ak li réew mi bañ ma bëgg itam usmaan Sonko ak mbooleem koo xam ne libre nga borom sa sam xel kenn yeewu ko ñuy daje fii périodiquement di dénoncer la la la corruption nommément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 ñooñu ñu ñoom daal di ko def otage di ko def loo lu ne lu ñaaw loo dégg du moom ñooña la te buñ ko ci génn du ca génn du ca génn c'est important su fekkee ne dañoo respecter les institutions jug boobu loolu waa ji bindoon ne euh, xawma euh, faut sauver le le nu mu tuddati soldat bi nu mu tuddati ah Rayane c'est ça mooy affaire Dreyfus quoi hmm. donc xam naa ko euh, il faut ñu dimbale Macky pour mu libéré ci la mauvais entourage boo boobaa ci la opposition bi di neexee ndax opposition bi baax mooy bii wax ak président bi te du ko korom pouvoir bi baax mooy miy déglu opposition bi te du leen jaay doole du tëj seen gémmiñ du yaakaar ne ñoom ay ennemi lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer li jaxasoo ci suñu arène politique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 jigéen juy sëy dafa war a moytu di lëngoo ak ki mbokkal leeg góor gi mbokkal leeg bàyyi ci mbedd mi ndax ña xamul lañ bokk yépp dañu ne kii de mi ngi sëy te mi ngi lëngoo góor ci mbedd mi may lancé fii ma toog appel solennel président Macky Sall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 benn bi moo wér benn bi baaxul feeg defaruñ ko doo doo mos a rawante Casamance mooy xoromu Sénégal mooy économie Sénégal mooy foresterie Sénégal mooy léppi Sénégal te yàlla def na wàll gi ci Sénégal ñëpp a bokk waaye ñi gën a wér ñi gën a wér mooy Casamance yi man sama doom a ngi ni Salif Sadio maama alors parce que nag joolaa bu yelwaan ci feu rouge bi dafa niru joolaa mais du joolaa xamuñu loolu xamuñu ñaan xamuñu ñaan ji nga jigéen ñi duñ laaj dépense dañuy wàcc ci faro yi jël jël jël jël jël ceeb bi indi togg ko jox góor gi mu lekk foofu la valeur intrinsèque yi nekk kon loolu bu tardé ñu wa jàpp ne ñii dañoo bokk ci feneen foofu lañ naxee suñ bopp euh, ana livre yi jàll am na juróomi am na juróomi livre yoo xam ne dama ko bind ñett moo nekk nii bii mooy la jolfo dégg nga voilà wolof sénégalais en donc origine héritage la jolfo mooy li pël di wax olof jolfo dañu oo ko jolfo kii nag boo ko liirul doo xam wolof wolof fii la jël ci pël xool bu pël ne nàgge ñu ne nag ñu ne nag ñu ne euh, nàgge euh, euh, ñu ne nag bu ne naange ñu ne jant ñu ne naaj bokk bu ne serembe ñu ne sëriñ bu ne neddo ñu ne nit bu ne lelo ñu ne lal bu ne sogli ñu ne soxla loolu du benn ma jël olof boobu 1500 mots français yi nga xam ne mi ngi ci biir wolof ñu di ko xamuñu ay mayonnaise ak pombiteer ak carotte ak <laughs> waaw nga yooyu yëpp 1500 mots français bi yu jógee ci arab waaw danga fi gis ay alaaji malik Serigne Bamba sëriñ Babacar Sy Baye Niass ma alaaji Abdoulaye Niass xalifa ñëpp ñu ngi fii alaaji Rawaan Ngom Maamulaay ainsi ak moo moo arab yi nga xam ne moo dugg ci olof moom 1300 mots la ba ci ay tuumaak ay similaak saak bala xal màddaak xibaar ak euh, waaw mu jëm noonu rek altine talaata àllarba alxamis yooyu yëpp rajo ah, waaw mu ngo kon nag ak lépp lu jëm ci administration ay directeur administrateur instituteur muy dem di dem mais dañ ko war a xam man nag comme maa ngi à la may di di kii nag di bind di teg am na fi yeneen ñaar benn mooy ma vie wax naa la ko samay jaar-jaar samay jaar-jaar nag ci général de Gaulle la tàmbali woon waaw kon nag ci jamono yu yàgg la jaar na ci Senghor jaar ci Lamine Guèye jaar ci euh, fii kër ñëpp kër Sénégal yëpp la rawatina yow kon euh, ñi ngi bëgg organiser waat politiquement le Sénégal poli euh, opposition yi bañ a def déni de l' des institutions y compris l'institution qu'est le président de la République mais que l'État sache que l'opposition est pour lui comme un miroir jeeg bu seer bu jeeg bu jaarul ci seetu avant mu génn dana bëri luñ koy wakk naa ko defaraatal sa kanam ngeeg sa musóor gi dafa dëng donc l'opposition c'est normalement c'est le miroir pour que état bi xam ne du nii nii la sinon dafay dal ci miir bi te fii ñu toll soxla soreetuñ loolu suñu diggante ak France dañ ko war a régler parce que France moo interdit ku bokk ci sëriñ di am benn baat ci état bi loolu France man ma leen ko waxee ngeen xam ne xam naa ko waaw ndax damay toog académie française ma taxaw fa man di joxe ay doctorat seeni borom di di teg di fàngaañu kon loolu xam naa ko te loolu dafay dañ parce que fii ñu toll tey tey bu taxaloo nag xalifa généraux xalifa généraux sax ñu bari la xalifa général moo am bu la neexee nag ne ñaar wala ñett waaye doo àgg juróom ñooñu tey bu jàmm amee ci réew mi ñoom ñoo tax am na ci ñoo xam ne yóbbanti nañu di wax affaire Ousmane Sonko tudduñu ko nag tudduñ ko xam nga lu wax ne nuñ ko tuddee laalaake ma ne xalifa général ñu ne Ousmane Sonko laalaake loolu mooy ku ko laal dañu gis ñun xalifa général yooyu waaye kon ñooñu ñoo yore ñooy les les gouverneurs de la paix kon ñooñu ñoo yore réew mi réellement kon buñ nee seen duñ ko laal seen kenn du ko laal y a problème mais loolu dañ koy wax ak waa Paris parce que loolu xajul ci bopp waa Ndakaar déedéet ñu dëkk Ndakaar loolu xajul seen seen diggante xaj moom bu mënee baw borom a koy ne kuti rek mu réglé waaw kon nag Ousmane dangaa ñëw ci diggante ñaari waxtu te àjjuma ji farata la te ñëpp lay déglu ndax am na foo jaar avant nga ñëw fii am na fooy jaar boo jógee fii mais fii rek moo fi rond point fii rek ngay toogee ci banc euh, siis boo xam ne bërki démb lu fi Macky Sall la jóge te maa ngi ñaan yàlla nga ngay ne jàkk ak moom mu nekk lu normal ngay wax ngi réew mi muy jubbanti ne liikat bu ma ko Ousmane woon loolu du ma ko def ba ba li nga xam ne am na ci alxuraan laa jox ne ma nga daanoo laa mu ne am na loo xam ne yàllaa koy def waaye nag buñ topp gaañ yi nga xam ne dañuy fekk jéeg buy waajo duggi ñëw toog ne ko damaa xiif jéeg bu duggeegul mën naa joxe mën naa joxe añ voilà c'est-à-dire yow li ngay dox ak fa nga jëm ak jàmm joto ko waaye nag bu la kenn fakkastal bu la kenn tegalay dëkk bu la kenn gaaloo say tànk ba nga ba nga daanu ndax ku daanu doo too wax say paa na nga ko doxal sa bopp boo tegee sa tànk fa nga koy teg na la wóor ni du kàmb du ndëgg sa rax du lenn waaw man mii di wax ak yow nag man sama yaay shérif la sëtu yonent bi la mën naa doomu Cheikh Tidiane dafa ma ne ku ragal nit sa ragal yaar dafa manqué man nag ba fii ñu toog alhamdulilah gisuguma nit ku ma ragal pourtant dugal nañ ma kaso jaar nañ ma ci jaar-jaar yi yëpp waaye taxul ma ragal doomu aadama ma ragaloon doomu aadama du ma wax ak yow du ma leen toogal fii du ma la oo du ma toog ñu lay jéem a néewal doole ma taxaw ne <laughs> te wax dëgg yàlla booba juróomi dërëm yow ma jox euh, taxul xëy na sax maa la ëpp ay juróomi waaw waaye boobu moo doon part maa ngi so sot bu ma ne su ma yónnee ko seen diggante déedéet kon maa ngi sot déedéet kon nag usmaan mbir màngo